tey nag muy bis bu am solo ndax jeunesse républicaine bi dañu tàmbali woon atum 2019 defoon la jeunesse en mars vers 2019 boobu dañoo jëmoon ci ay élections ñu jàpp ne élections yooyu kat dafa am taxawaay bu am solo buñ ci war a am ñun la jeunesse ba buñ ca eggee buñ mënta gañ dëkk bi tamit dinañ ci am lu ama am solo ci biir dëkk bi ren jii aussi. maa ngi wax ci kanamu kilifa yi nga xam ne toog nañ fi ministre conseil mi ngi toog di ma dégg député mi ngi toog di ma dégg muy honorable Matar Diop au conseil mi ngi toog di ma dégg muy honorable Abdou Lahad Seck Sadaga kon li may wax maa ngi koy wax ci turu jeunesse républicaine di COJER convergence des jeunes républicains mais aussi jeunesse républicaine bi ñépp bawul kenn di ko wax mu doon loo xam ne lu ñu tàmbali la yéene boo xam ne dañu ne dañuy xàll yoon jëm 2024 fas yéenee dem jëli ndam jox ko suñu candidat dañoo gëm ne li ñu jëm di 2024 lu ñu war a mën a am ndam la mais à condition que ñu defaraat suñu taxawaay ni ñu ko defee tey ci kàttanu suñu borom noonu lañ fas yéenee dajaloo continuer di ko def ba egg ci atum 2024 di ca ñaan yàlla kii nga xam ne ñun moom la ñu tànn te gën ne moo gën ci réew mi ngir taxawaayam gën ne liggéey na ci réew mi lu kenn musul def ci réew mi xam nañu ne sénégalais yi doyaluñ ci moom ndax ñun bu ñuy fal nit dañ ko fal pour mu liggéeyal ñu suñu réew dañ ko fal pour mu jëleel ñu Sénégal ci ci point A yóbbu ko ci point B te te loolu képp koo xam ne tey yaa ngi ci réew mi même nga bañ a ànd ak président Macky Sall xam nga ne am na lu mu def ci réew mi lu war a tax ba 2024 ñu joxaat ko réew mi mu continuer di doxal parti bi organisation bi mu am mooy dañu am ay zone zone yi wax dëgg yàlla kenn ku nekk ci ñun gis na ne am na njariñ man li ma gëm loolu la waaye gis naa ne kat zone yi bu amee njariñ buñ ko dolliloon doole xëy na dina ci gën gis nañ aussi que ne yooyu nga xam ne tey mooy appareil bi ñu yor di ko doxal ci wàllum politique doxin wi dafa des buñ ko waxantee ndax man mënuma gëm ñu ne ñoo yor parti o pouvoir boo xam ne tey ci dëkk bu mel ne Touba élection yu ñu dem dañ koy ñàkk loolu war a doon kersa ci ñun ñu war a am toujours taxawaay bu bokkul ak bi ñu doon amaat léegi ma laaj ma ma seetlu ne sax dañuy dem élection zone yëpp mobilisé wu dugg ci quartier yi wax ak nit ñi bu ñu paree ci élection yi ñun ñëpp ñu toog fii xam nañu ne buñ paree élection balaa ñuy santiiraat soon dañu demaat ba élection léegi ndax dëkk bi élection ba élection la dëkk bi di am déedéet ndax population bi dañ leen war a bàyyi bañ a wax ak ñoom bàyyi ñeneen ñi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ seen yéene ci réew mi ñu dem yàq xelu nit ñi détourné leen dugal leen ci leneen loo xam ne bokkul ak liy jàmmi dëkk bi kon ñun dañoo jàpp ne loolu war na am beneen organisation boo xam ne war nañ ko ci am. madame la ministre de la femme ñayu xare président Macky Sall bi.

ci njabootu sëñ Touba gi def leen ay chargé de mission waaye yemul foofu mu ñëw ci njabootu président Macky Sall bi nga xamante ne si ay soxna lañ yàgg nekk sur le terrain yàgg xeexal parti bi docteur Fatou Diané Guèye tànn ci 16 chargés de mission au niveau de département de Mbacké. Fatou Diané Guèye yàgg di financer jigéeni département de Mbacké. ñi toog ci jataay bi xam nañ bu baax li may wax docteur faatu jaane Dieye ci financement frigo yi faatu ci financement tricycle yi faatu ci financement moto jakarta yi machine à moulin yi machine à coudre yi waaye ci financement xaalis dama ne docteur faatu jaane Dieye kenn du moom dans la région de Diourbel kenn du moom ndax dafa def loo xamante ne si masu fee am à jeunesse féminine di gën a insister ci ñoom ci seen taxawaay ndax jàpp naa ne bu ñu waxee ndaw bu ñuy porte porte ndaw mooy porte porte bu ñuy sol lokos ndaw mooy sol lokos bu ñuy sol casquette ndaw mooy sol casquette nekk sur le terrain bu oto yi feesee ndaw yi ñooy nekk ci ginnaaw pick-up yi di sensibiliser jàpp naa ni lii nga xam si ne mooy commission yi bi mu ñëwee jeunesse féminine bi lañ njëkk impliqué pour nañu rattaché la yóbbu ci commission kon ndaw ñi xam nañ ni jeune président Macky Sall moo leen ñor li falaat président Macky Sall rek ci loolu la ñuy ndaw parce que élection mënoo koo wax te waxoo fichier électoral élection mënoo koo wax te nit amul carte d'identité parce que mooy ngànnaay bu gën a wér kon su ndaw ñoo ñu taxawee dëggal seen bopp lépp lu parti bi ñu woote ñu dem ci lépp lu ñuy def ñu nekk ci kon ndaw ñooñu jar nañoo dooleel rawatina jeunesse féminine bi nga xam ne si ne diir bi parti bi déparé ba léegi opposition ba pouvoir ñi ngi ànd ak le président Macky Sall te tey boo xoolee daal département Mbacké wala commune bu Touba tey ñi ci nekk ay jeunesse féminine takk ci ndomb ak tànk ñu néew la boo nee benn peut-être doone doone ñaar te loolu xëy na peut-être ñu ngi ko am ci ministre de la femme ñuy lancer appel kilifa yi ñu gën a insister ci ndaw ñi parce que politique bu ñu koy wax ndaw ñoo tax. man damay dellu rek di wax ñun ñi toog fii di politique yaakaar naa ñun ñëpp xamante nañ ci kaw xamante gi mooy man li may def mooy di gën a tàllal sama loxo yéen fexee xaj ci nit ñi ñu ñëw ñu ànd liggéey bi kenn ku ci ne soon ba nga jiite ña nga xam ne nekk nañ fa APR te bëgg a nekk APR wala ñu nekkagul APR te bëgg a nekk APR ñu fexe leen a ñoddi ñu taf leen ci suñ kaw parce que bu ngeen xoolee opposition bi ñu ngi soow naan liggéey nañ liggéeyuñ mais dañoo ànd ñoom dañoo dem nag bala waxuñu waxi xëy dañuy dem di cotiser di def ci parti bi kon nag ñun ñi moom parti bi te am na ñenn ñu nga xam ne ñu ngi mus dara kon war nañoo mën a góor góor kenn ku ne la ngay mus nga fexe def ci dara ñu musut ñu di leen jàppale ba li nu jublu ñu mën a def mbind mu nga xam ne mu jaar yoon la man lool laa leen tànnal soxo soon bi ñu ko bokk xamante nañ nun ñi tobbi soon itam jiite soon yi xamante nañ kon ñi yor soon yi nañ tàllal loxo ñi nga xam ne dañoo nekk ci soon bi te bëgg a liggéeyal parti bi parce que bokk ci soon tamit ñuy doxal soon ba la ñuy def ca soon ba mënoo cee xam mënoo cee mos du tax nga nekk ci parti bi kon ñi yor soon yi nañ góorgóorlu gën a ubbi bopp ñi bëgg a bokk ci parti bi ñu boole leen ci te li ñuy jot néew ak a bari bu ci seen wàll nekkee ñu du leen ko jox loolu daal laa leen di gën a taalal sama loxo di woote ñu gën a xam li nu jëm. di am mbégte rek teew fii di ci am aussi satisfaction ci li nga xam ne organiser ngeen ko ndax da def dépassement mooy yéen ñëpp da ngeen ànd nekk benn defandoo activité bu toll nii te loolu c'était pas évident. kon kenn ku ne ci yéen am na loo xam ne bàyyi na ko ngir ngeen mën ànd parce que yéen a bokk lenn lu ngeen di viser muy la réélection du président Macky Sall man aussi bu ngeen gisee ma mën a ànd ak yéen moo di man Macky Sall mooy sama candidat en 2024 ci loolu laay liggéey képp koo xam ne gis naa nga ne ci lool danaa ci ànd ak yow képp ku ne ci leneen nit sama yoon nëpp ci danaa leen jox information man liggéey boobu commencé naa ko maa ngi ci am na lu ma ci ab laat dagg mi wax ne ma ñoom doon nañ ci waxtaan zone yi en 2017 dañ ko matérialiser man bi may ñëw fa laa fekk idée bi sama kër la ñu daje guddi foog naa Mor Lo mi la woon Laat Seck Xaadim Silla Bassirou Diagne Mor Gueye mu ñëw indaale fa Mor fay yaakaar naa su ma su ma jëmul keroog lañu ñu tëral lépp ba mu dox organisation bu baax la parce que ay nit bu ñuy ànd faaw ñu ànd ci dara ndax lu lu metti metti tënku ci dara dafa gën ñàkk tënku ci dara kon volonté la boo xam ne am ngeen ko ngir am lu leen lëkk lëkkale ngir ngeen di liggéey donc cadre de travail la dem ngeen ba gis nga war ngeen ko yokk loolu man sama xalaat la yàgg naa koo xalaat mais man naa la officiellement aussi ne leen direction parti bi loolu mi nga xalaat te dana ko def pour les zones kon ngeen defal ko bopp xañ ne mooy gën ñoom ñu ñëw mais je sais que ñoom ñu ngi koy xalaat parce que xam nañ ne ak ni muy demee nii Touba ni mu tollu xaj na zone yi euh, mënu ko couvrir buñ bëggee am proximité bi ñu mën a am kon yokk gi lu jaadu la. di sant di gërëm jeunesse bi ci seen taxawaay mais di wax ne maa ngi sant mbooleem ku ci jàpp ci bis bi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. dafa mel ne li ngeen di wax xel yi. montoor yi bokk heure yëpp montoor yu baax yëpp parce ñoo bokk heure li ngeen def tey lu am solo la ab parti gone yi ñoo yor animation bi animation parti nag dafa am aw yoon parce que léeg damay tooñ yenn responsable ci xale yi ñu baal ma ci waxin wi dama leen tooñ léeg-léeg ne leen damay xaw di jaaxle ni sunu parti bëgg a doxe muy ci ci li jëm ci ndaw ñi parce ab parti dafay am eras yi dafa am ñu nekk ci kaw am ñu ci topp am ñu ci topp mais bu ñu demee ci yenn ndaje yi da ngay seetlu ne sax yenn kilifa yi buñ ñëwee danañ am jafe-jafe ci ay gone rek ñooy téye fi ñu war a toog ñu toog fa te loolu du lu gën loolu il faut ñu bàyyi ci xel parce que loolu mooy doxal parti parti dafay laaj damay tooñ moorloo démb ci suñu réunion ne ko moor parti bi bu njëkk bi ñu nekk PDS ñu ak ñoom moor ñi ñëpp ak lu ñu doon doon ay mag dañ doon nekk ci ginnaaw oto yi di jàkkaarloo ak ñi ñu jàmmaarloo te loolu noonu la ñu yore parti munta ñàkk ñuy wàcc di jàmmaarloo di fàtte sunu bopp moo waral léeg-léeg bu ñu demee élection may engagé wu ci yenn yi parce que day dem foo xam ne léeg dañu am ay vide ci biir ci biir lieu de Wadi léeg-léeg ñu am ci ay vide yoo xam ne ndaw ñi ñoo war a taxaw pour xeex loolu